yaquulu abdullahi wa huwa ahmadu xadiimu man sumaatuhu muhammadu yaquulu abdullahi wa huwa ahmadu xadiimu man sumaatuhu muhammadu bismil ilaahi wa huwa rahmaanu wa huwa rahiimun xaadalil amaanu alhamdulillahi ala alkitaabi ma safiici almuzhibi alitaabi sayyidina muhammadin xayril wara man xaada lii xidmatahu wa suwara summa salaatullahi wassalaamu ala allazi minni loo aqlaamu sayyidina shafiicina almuqaddami inda allazi tazko laday xidami muhammadin wasilati wa junnati anil aadi wal asa wa jannati waali wa saabil abraari fil haali wal maali bi takraari haza wa xasi xidmatun taqarru aynu nabi biha kama tabarru nawaytu min zalaami xidmatan tasur musafaan bi ku fiitu maasur xadrumtu min rabbil baraaya xidma liman bi jaahi kafaani sadma ahmaduhu ala xurujin min darar wa kulli suin wa anaain wa garar ashkuru shukran yajur zayda bisrin wala yajur nahwi kayda حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزعزع غرورا فقمت نازما لذي المقدمة مصليا بها على من خدم مرتجيا كوني خديما أسنى وأن أفوز بالمقر الأسنى multamisan min maliki an yanfaa biha allazi yuridu an yantafia jala llahu bi jaayil mustafa salla alayhi bi salaamin yustafa nasman mubarakan yaqil azaba كما الذي كابدني أسابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل للراغب قد انصرفت للمراد خائلا مع الصفاء بائتا أو خائلا inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman labbayka rabbi wa saadayka wal xayru kulluhu bi yadayka abduka raaji bayna yadayka musalliyan musalliman ala akrami alxalqi ladayka xaa'ilan ya rabbana ya rabbana ya rabbana yaa rabbana yaa rabbana yaa hibbana amartana bi an nusalli ala sayyidina manil bariyata ala muhammadin wa an nusallima ala yaa baaxiyan abqayta sarmadan ala fa sarmadan salli wa sallim yaa karim anni alayhi wal taqut li ma arum salli alayhi fi jamii al-aali ma salaamin wastajib su'aali salli alayhi fi jamii sa'bi ma salaamin wal tuwaddih lahbi واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تحسمهم من سلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلما ala nabiyin sabqu xatun lima sayyidina muhammadin wal ali wa saabi fil xaali wa fil maali yaa man bi saaza xayrul anbiyaa minal la'iinil hibbi sharril aghbiyaa salli bi tasliimin alan nabi wal aali wa saabi wa sun maxfi yaa man min annaasi maana samta xayral wara wa sha'nu azamta a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahumma bi haqqi wajhillahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe bi nga yéen a ngi teewlu saa su nekk fii ci réew mi bitim réew mi di leen jaajëfal saa su nekk di sant suñu borom subhaanahu wa taala julli sayyidina muhammadu rasulullah sangu sang yi ñoo ngi siyaare sëriñ sëriñ sëriñ Muxtaar Mbàkke mu yàgg fi daan ak wér di ko ñaanal sëriñ Saw Jëm Fall xalifa bu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal mu yàgg fi daan wér di ko ñaanal njabar sëriñ Tuubaa Sëriñ Fall gépp mbokk taalibe amaan nañu mbégte amaan nañu tawfeex di leen teewalaat si bis yi nga xam ne moo di bisub xasida yi ak lépp li nga xam ne moo di daje daje yi am si yoonu murit mbokk taalibe fii ñu nekk ne moo di Louga suñu moom dogal tey ñëw fi ne ñëw si commune bi nga xam ne moo di Ngéen Sarr seen bis xasida bi nga xamante ne waa daara ansaar yi ñoo ko amal at bu jot daara dooma ay jàmbaar kese ñoo fi nekk ak ay magum ak ay ñu am solo léegi dañuy bàyyi rek ngeen daal teewlu bés bi incha allah euh, xam naa si kanam kanam dina may waxtaan yu amal lu jëm si wàllu jëwriñ daara yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk gox bi ak kilifa daara yi jërë ngeen jëf ولا الزدوزدي لو كن لأمين الفاسي سلام علي بآلي وصحبي وكل نزي أديم صلاة على المرتجى وصلوا عليه صلاة النزول فإني أزال إلهي بذلي بخير تيام على المصطفى أزيم أي سبي إلهي بذلي على من أتم مؤيبا مؤهبا سبورا سبا إلهي بذلي على من بدم تقيا نقيا رئيسا رجل إلهي فصل على من أتى مطيعا متاء لرشدي جنو إلهي فصل على من رئي ببار تجود بخير منن يزول بأرائب نفس ورد صلاة تريني هنا وجأه إيانا ليصفي قلبي جري صلاة منتقى مجتبى جميل آيا سكي الإجاب مبار وأصل لكل دين سعيم بكذب كرب الذي يلوس بها الانتخاء دنو حرام على من أدعو أبا دخول الجنان دخيلا ومن لم يلين أجو ينتصر بقود ثقيل ونار له تفونا على خيرنا بالأولى إذ المصطفى خطف برجف أديمون تدليمنا فلا ينبغي أن يفوزك بمد عجيب لخير سمو فما دون نبي كريم علي يكون أنا وأرد والفضل يسبب أهلا عرم عسى فيجلس وسلام مدات النبي كريم سقي وارجو به دار ان لا اميد الي الذي جعلني اذ المصطفى خطب برجو اميد الي الذي جعلني الى خدمه المجتبى سلفته اميد الي حمدا يفي بخير مزيد على ما أتي أميد إلهي الذي جارني إلى خدمة مختفى سمر أميد إلهي بذكر له على جذب قلبي لأبي نذير لأبي رذل

أتيقت من إفوس يريد الشريف أنت شكر وتهبل الختم عليه معرك الأوطان باخ عزني من الشيطان بدأت بسم الله ورحمن وبالريم المالك الأزمان فتح من سماته الفتاه لمصطفى سماته المفتاح بان لكل من له صلاح عن امتداه المصطفى فلاه آيات أحمد حوت كتب من أوها إليهم ذو البرايا والزمن نبينا الماهي مع كل حزن عنا كما هبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو الخدم تسره مني دواما الخدم أحمد المخدم على الرسول والنبي المخدم إن أمن عبد الله فاخ الخلق جميعهم درجة وخلقا تسليم رب العالمين سرمدا على أجل العالمين أحمدا yumnum ni abdillahi xaadal barakaat li sakanaatil asyaa wal xarakaat hudaa bil xaasimi nawara sudur tanwiira mujili sumuusi wal budur yan xaadu lil muxtaari man xaadal kiraam له بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاخا وخلد الصفا والوفاخا أمضاه خادت لنا الصلاح ولم نوى التوفيق والفلاح حسنا سعادة بمن به الورى خلق من خاد إليه الصورى نفه النبي للخديم كشفا وحبه أعنى الخديم عن شفا أنا لله جميع ما اشتهى عليه تسليما من غير انتهاء كتابه فوق جميع الكتب ومثله فيما مدى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربي بسول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على من أرسل شاهدا ومبصرا ونصيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورضي الله عن الخلفاء والأمراء والأئمة المهتدين allasina jaadoo fi laay xaq jihaadihi iqwatul iman fi kulli makaan assalaamu aleykum wa rahmatullahi mbokk jullit yi teew ci bis bii ñoom ñépp maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bu tedd ci ngoon su barkeel si jiital ci nuyoo bi boroom dëkk bi teg ci ki nga xam ni moo fi nekkal nguur gi muy monsieur le maire Ibra Top ndax alxuraan dafa ñoo digal topp yàlla topp yonent bi waaye topp buur yàlla nee na attihon laaha wa attihon am wa ulul minkum topp leen yàlla topp yonent bi topp ñu amee seen mbiri adduna muy nguur ga li fiig nag ñu ngi leen bàyyee seen jàkka ak seen ëb téere muy alxuraanul karim li fiig buur terewu leen a ci seeni i jàkka li fiig buur terewu leen jàng seen téere bi alxuraan topp leen leen seen ndigal alxuraan loolu la wax yonent bi sallallahu alayhi wa la wax kon ñi ngi teg nuyoo boobu yépp mu tegal ñu ko ñi nga xam ni ñoo ko yelloo mu mel na bisu tey bii bisu bu tedd la bisu bu barkeel la li ñu sant ñu wax na fi nag léegi rek lañu ko wax mooy tarixa lan mooy tarixa tarixa man ngaa wax ne tarixa mooy aw yoon aw yoon nag ku si topp te wàccu ko foog nga dem ci ab dëkk loolu mooy tarixa tarixa boo mën a jàpp tey def lam la sant di bàyyi lam la tere foog nga àgg ci yàlla loolu mooy tarixa tarixa mooy aw yoon tarixa yooyu nag génnul alxuraan génnul sunna sunna si yonente bi sallallahu alayhi tarixa ma ni génnul alquran sunna si yonente bi sallallahu alayhi ndax tarixa boo mën a jàpp munoo génn astaxfirlaa te astaxfirlaa yàlla wax na ko ci alquran yàlla nee na istaxfiroo rabbakum innahu kaana xafaran tarixa mooy salaatu ala nabi muy julli si yonent bi yàlla nee na huwa allasi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijukum min asulumaati ila noor loolu lépp mi ngi ci alquran yàlla delloo waxaat ci alquran ni inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi kon yéen ñi dugg ci daayratul iman wax leen ya ayuha allasina amano sallu alayhi wa sallimu taslima aturuxu kullaha mustanbalatun min alkitab wa sunna tariqa yëpp ñu ko ballaloo ci alquran ak sunna tariqa boo mën a jàpp ma nga jëm ci yàlla ak tariqa kullaha musilatun boo mën a jàpp rek mi ngi jëm ca yàlla ndiyam tariqa ba dëppoo na ak sunna kon tariqa mooy astaghfirullah tariqa mooy salaatu ala nabi tariqa mooy laa ilaha illallah alquran nee na laa ilaha illa anna fahbunni aqimi salaata li kon tarixa génnul alquran tarixa mooy astaghfirullah tarixa mooy salaat salaatu ala nabi tarixa mooy laa ilaha illallah te loolu lépp alquran tudd na ko kon tarixa suñ la doon wax tarixa lan la da nga naan tarixa génnul ak sunna loolu mooy tarixa boo mën a jàpp yaa xam am murit la yaa xam tiijaan nga yaa xam xaadir nga yaa xam sax jàppul benn tariixa ku jàppul tariixa sax loolu lay wax ku jàppul benn tariixa du murit du tiijaan du xaadir mun la génn laa ilaha illallah mun la génn salaatu ala nabi mun la génn astaghfirullah muy astaghfirullah ki jàppul benn tariixa sax loolu lay wax loola la Seexul Xadim radiyallaahu anhu leeral ca Masaalik ni Seexul Xadim ne fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yahida sawaun intama ila jaylani aw intima li ahmad tijani aw li siwahuma min al axtaabi is kulluhum xatxan alal sawaabi Sëriñ Tuubaa nee na tarixa boo mën a jàpp moo xam murit nga dangaa jàpp ci murit seexu murit moo la jox werd wi nga di ko werd moo xam seex naa Ahmad Tidiane Serif moo la jox werd wi nga koy werd moo xam seex Abdul Qadir Jaylaani moo la jox tere xam nga jàpp nga koy werd ñoom ñëpp soo ko dee def nan la ko waxee ñoom ñëpp seen werd yooyu mu ngi jëm ci yàlla kon tarixa nu mel mi ngi mel na ak garab la garab gii datt bi ñoom ñëpp mooy lislaam ter yi mooy tarixa ñoom ñëpp nag lislaam rek lañ jàpp kon turux yi noonu la mel turux noonu la mel kon bennoo bii ngeen def daf ay dawaayir moo xam murit la moo xam tijaan la moo xam xaadir la ñoom ñëpp ñu moy ci benn ngeen dajandoo di yëkkatigandoo di tegandoo nekk benn taq ci waxtasimu bi ab ablillahi jamihan wala tafaraqo loolu yàlla digle woon na ko bu yàgg yàgg yàgg kon yéen loola ngeen feddali waxtasimu bi ablillahi jamihan wala tafaraqo mooy leen ci buumu yàlla gi buumu yàlla mooy lan mooy lislaam ñun ñëpp nañ bokk mooy ci buumu yàlla goo xam ne du dagg du rawañ tugu mukk buum bu dëgër la mooy lislaam gi boole rek waaye bu kenn taqale ko sa morom loolu nag soo ko jàppee mooy taqwa mooy ragal yàlla loolu lépp soo ko defee li muy andi mooy taqwa muy ragal yàlla moo tax mu ni woon fa inni usikum wa nafsi maa awsa laahu bihi min qablina wa iyaana min bahdina fi muhkami tansilihi allazi laa yaatihi batilun min bayni yadayhi wala min xalfihi wa fi qawlihi wala qad wasayna lesina ootul kitaaba min qablikumoo wa iyaakumoo lan an itaqolaha li ma leen digal yow yonent bi nga digal ko saw xeet ak ñi la jiitu woon ñoom ñëpp lan la mooy taqawallaahi rek taqawallaahi nag ragal yàlla nag du dara lu dul daf li yàlla digle bàyyi li yàlla tere loolu rek mooy taqawa al amru bil mahruf wa nahyi anil kar loolu mooy ragal yàlla da ngay def yàlla digle bàyyi li yàlla tere bennoo boobu moo tax alxuraan nii zaraha lakum min a diini maa wasa bihi ibrahima wa muusa wa hisa lan an aqimoo diin wala tafaraqo yàlla nee li ma yoonal ci yéen dénk leen ko dénk ko yow Seydina Muhammad dénk ko Ibrahima dénk ko Moussa ak Isa mooy lan yéen lépp taxaw leen diine ci temm te bañ a xëccoo bañ a ŋaayoo bañ a taqalikoo loolu laa dénkoon Ibrahima moom laa dénkoon musaa moom laa dénkoon Isa ngeen bennoo nekk yëddun waahid te bañ a taqalikoo ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nii ngeen def yërmande mi ngi ci mbooloo taqalikoo nag mbugal rek lay indi kon innamal muminuna ixwatun fasluhu bayna axwaykum la alquran waxoon yéen jëfi ngeen ko yëwanal ngeen ko te alquran nee na woon wa anna asihi sirati mustaqiman fatabiuhu wala tutabihu subula fatafaraqa bikum an sabilihi dalikum wasaakum bihi laalakum tattaquna yàlla nee na lii mooy sama yoon mooy lislaam tariqa bii ngeen topp muy yoon wii ci lislaam mooy sama yoon mooy taxawal julli juróom natt asaka aj makka boo ko mënee woor weeru koor jéggal ku la tooñ bul tooñ kenn te ku la tooñ nga baal ko lii mooy sama yoon moo tax yàlla nii lii moom laa leen dénk lii mooy yoon wi ñun ñëpp nañ bokk sóobu ci yoon wi kon lii mooy tarixa tarixa ak jaamu yàlla la ak tërbiye boo xam ni day tërbiye ruux pour ruux ruux gi mën a sell moo tax ñu tànn ay daara tarbiyulu daf ay seex daf ay muqaddam yooyu yëpp tarixa bi bu ko dee def mooy sellal bakkanu nit ki tàggat ko ci jàmm yàlla tërbiye ko tàggat ko ci ba ruuxam sell du bëgg lu yàlla ak leer rek kon tarixa buñ la laajoon tarixa mooy tarixa alquran la génnul alquran téere bii génnul sunna sidina muhammad bii te yonent bi sallallahu alayhi wa seen bi wax na ko léegi ba mu fiy jógee ñaar rek lañ bàyyil su ngeen si jàppee du ngeen réer kenn du leen réeral mooy lan mooy kitaabullahi tabaraka wa taala wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu alquran digle nga def waxtu alquran bàyyee tere lum mu tere nga bàyyi ko yonent bi ne waxtu ngeen jàppee ci alquran di digle lépp lum mu ngeen def ko lum mu tere ngeen bàyyi ko kat kenn du leen du ngeen réer te kenn du leen mën a réeral kon tarixa génnul alquran tarixa génnul sunna sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeem sëriñ bi nga ko jàppee ni mu la waxee ni nga koy dafee dafe nga ko noonu kon tarixa li taxoon mag ñi mag ñi sos ko mooy diine ji ci boppam man na waaye lu tax nit ñi sos ko mooy tërbiye nit ñi moo tax ñu sosoon tarixa boobu kon nag su ngeen sàkkee benn bis bu mel nii woo seeni ay mbokk julit ñépp ñu ñëw di duruus ay xasida di jàng alquranul karim nga xam ni bis bi alquran lañ ko ubbee ci suba kon bis bii dañuy am yaakaar njartu lu rafet ak yaakaar ju dëgër ni lépp luñ fi ñaan suñu borom tabaraka wa taala dana ko nangu insha allahu tabaraka wa taala ko yàlla def muy yiw yàlla daf ko xéewal ak naataange cant ko ci mboolem ñi nga xam ne ñoo koy taxawu dëkk bi ak gox bi yépp alxuraan moomu nag mooy téere bi nga xam ni ku ci jàpp dootoo réer ku ko bàyyi réer kon alxuraan foog ñu koy jàng di ko setantal di xool ay maanaa ñi nga xam ne moom lay wax ñu koy firi ba xam la maanaa mi lan lay jariñ kon lépp looy commencé ak ubbee ko alxuraan amul sikki sàkk ni loola barke dana sa am seelu xadim kat waxoon na ci masaalik ba nu waxoon léegi nii fa man araada al qurba min al mawlaahu fal yaqrih al quraan sëriñ tubaa seelu xadim nee na képp koo xam ni bëgg ngaa jege sa borom tabaraka wa taala na nga sax ci jàng alxuraan rek te mbir mii muy place bi alxuraan ko ubbi wu ci suba ak ay salaatu ala nabi mu dellu waxaan ni fa man yurid fa man yurid ridal rahmaani fal yusbitan tadabburil alquran képp ku bëgg ngërëmal suñu borom tabaraka wa taala na sax rek di duruus alquran te xasida yi ni jàng nii génnul alquran xasida yi mi ngi jóge ci alquran génnul alquran kon soo dee jàng xasida mi ngi mel na jàng jàng alquran soo dee jàng alquran moo xasida benn la ñoom ñoom ñoo yem benn wàccuwaay moo tax day laaj loolu fu ñu koy yëkkatee nit ñi ànd ak teewlu ak diglu diglu xeraklu alxuraan ka ba ma xëy way saa xure alxuraan fastamihu lahu fansitoo fansitoo mooy lan mooy du diglu nopp waaye da diglu ak xeraklu kon waxtu wun dee yëkkati xasida waxtu wun dee jàng alxuraan ña fay teew yépp mën ñuy diglu diglu xeraklu mooy di diglu baat yi maanaa yi li muy firi ndax jataay bii ñuy jàngee alxuraan jataay bii ñu yëkkatee xasida li fii ñu ngi fi toog malaaykatul kurama yu tedd yi ñoom ñëpp ñu ngi toog ak nun ci béréb bii dil fu jóg mukk li fiig xasida yi mi ngi gu di jolli sa kaw li fiig alquran mi ngi jolli sa kaw malaayka yaa ngi toog ak nun kon kay li war bu fekkee malaaka yi ñoo ormal suñu borom tabaraka wa taala ormal béréb bi waxuma kon ñu jaam yi war ñoo fexe ba loolu malaaka yi def bu fa àggal itam ñu fexee roy reylu loolu nit ku ne da ngay nuru dara bu yàggee rek nga nekk moom ku nekk da ngay def te kalluf di nuru nurul dara bu yàggee nga nekk loola looy roy rek bu yàggee nga nekk ko tey yàlla kat alquran dafa ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana na ngeen roy yonent bi bu rafet ngi lépp lu leen wax ngeen jëfe ko leen tere ngeen bàyyi ko kon daal waxtaan yi mu ko doon tënk ci njëriñ li terexe bu ñu waxoon ko gàtt na lool xan na lool waaye nag fokk ñu xam ne tarixa ku ko jàpp mi ngi mel na yaa ngi jàng alquran tarixa ku ko jàpp génnul sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndiyam yaa ngi jëfe borom tarixa nam la ko waxe kon nag ñëpp ñi nga xam ni ñoo taxawal bis bi ak ñi yëkkati seen alal def ko si ak ñi si liggéey ak ñi ñàkk ñëpp pour bis bi yàlla na yàlla fay te yàlla dina leen fay alquran nee na man du ma niiñal jëfi kenn loolu képp ku def rafet naa la ko fay ndax innal xasanaati yusibnal sayiaati man amila salihan fa li nafsihi wa man asafa alayha wa ma rabbuka alayha bil lil habib kon yàlla du tooñ kenn te xam ni ñii ay tuut tànk lañu li war mooy foog mu am ay mag yu nekk seen gannaaw dalal seen xel di leen soññ ci liggéey bi di leen dëgëral di yëkkati loo xam ni mooy seen ñaq di ko si def daayira mën a dem sa kanam pour kuréel mën a dem sa kanam l'islam ba muy commencé dafa tumbaranke woon lool yonent bi ñu woon ad diinu xariban wa sa yahudu xariban l'islam dafa commencé ak tumbaranke waaye nag foog mu dellu ci ak tumbaranke waaye bu boobaa mooy lan na nga si jàpp waaye ku si jàpp day metti lool mu ngi mel ne ku tëye ci xalu safara rek kon ab jullit du wàcc rawatina am murit murit moom du wàcc ndax dafa jaayante lan la jaayante mooy bakkanam ak alalam la jaayante kon moom du wàcc mukk alquran nee na inna allaha astara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jaayante seen bakkan ak seen alal pour lan ndax bëgg àjjana àjjana yombul de yonent bi nee na àjjana dañ koo wërale ay naqari naqari ay tar-tar yooyu nag bala nga koo dagg bu ñëw si moom foog nga not sa bakkan foog nga not sa bakkan safara nag li ñu ko wërale mooy lan ay bànneex rek foog nga mucc si yooyu yëpp seytaane moo koy def kon nag yal na yàlla defal dégg ak topp suñu boroom tabaraka boole ñu dimbali te ñu boole jàpp ci lii xam ne mooy dëgg lii rek mooy dëgg lislaam mooy dëgg leneen lu ci lislaam nekkul dëgg nii ngeen àndandoo nekk benn nun ñëpp nañu àndandoo nekk benn soobu si yoon wi rek ñay jot si ëllëg nag yàlla na si yàlla boole wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu madal xabiro kare Sarr maay jëriñ daayira daayira bi daayira bi ah, nag dañ ko sosay léegi mu toll juróom-benn at juróom-benn at mu toll mu toll juróom-benn at mi ah, ngi sosoo ci bi mi ngi sosoo ah, bi jumaa ji taxawee yàlla def jumaa ji Mbay Sarr moo ko fi def boole ci école bi bi école bi sosoo nag moo indi daayira bi waaw ci la daayira bi sosoo daal boobu ba léegi mi ngi dox waaw yàlla def xale yi ñu ngi liggéey liggéey bu baax a baax waaw daal am nañ Pastef lool man nag dañ maa jël def ma seen kanam li ko waral nag mooy seen Pastef rek ak seen yéene waaye man daanaka liggéey bi aw eh, def ma ci dara ñoom ñooy def lépp mu toll juróom-benn daal ñu ngi koy def waaw ndigal nag mu bawoo ci daanaka euh, xalifa général waaw parce que bi mu so bi école bi so daal ci la daayira yu sosu ci ndigalal Serigne Touba rek ci la sosoo ndigal Serigne Touba la sosoo waaw yàlla moo def noonu comme Serigne Touba moom mel noonu moom Serigne Touba moom mbiram euh, daanaka boo ko seet seet ko ci xale yi waaw loolu moo ko waral ndax bi mu fi sos rek noonu ay mag lañu euh, ñoom ñoo fi nekk di ay ñoom ñoo ci ne ñu ci duggee nag yàlla def euh, daayira bi sosu ci waaw ñu am ci passé nag ak yéene ak liggéey bu solo daal waaw noonu la doxee hmm? di sant ak gërëm rek maa ngi leen sant yéen eh, télévision bi Bichri TV ñu sant leen gërëm li ñaan sama borom ba defal seen yéene yàlla defal leen ci xam ne kawe yéen la daal waaw di leen sant leen gërëm yàlla def mu kawe lool ba ngay sut ci télé yi ci daraja yonent bi barke borom Tuubaa ak Cheikh Saliou ansibilahi mina seytaane rajim ma sante yàlla julli ci yonent bi di sant sama waare ñaari ñaari waajur di sant waa dëkk bépp ak kilifa yi ci dëkk bi yëpp maa ngi tudd di masaar soxna Dima di jëwrini xare yi ndax daayira bi moom yàgg na lool wax dëgg yàlla xëy na léegi day gën a màgg jëm kanam waaye yàgg na lool ñuy ñaan ci yàlla ni ñu ko doore woon muy jëm kanam yàlla na gën a jëm kanam a kanam a kanam di sant sëñ Dan mi nga xam ne si mooy suñu jawrin fii ci goxu Louga bi di ñaan yàlla mi nga xam ne si moo fi bàyyi sëñ Dan yàlla bàyyil ñu ko fi mu yàgg fi lool te amug wér ndax moom moom lañu maam moor dénk mu nekk sunu jawrin fii ci Louga bis bi moom bañ ko daree waaj dafa yàgg ndax dañ ko woon waajal muy am ay comme si nii buñ ko waajal day xate ba du ñëpp duñ mën a ñëw ñu waajal ko ba tabaski pare pour mu gën a yaatu pour taaliba yëpp mën koo seetaan moo tax ñu def ko ñu jàpp ko ci bis bi biñ tabaski bis bi del si moo tax jàpp ko ci daayira bi moom xale yi waa kuréel bi jàmbaar ñu ndax bi ñu tuut bi ñuy tuut tànk lañ ko commencé ba négéni ba tey eh, ñu yaatoo ko daal ba ñëpp xacc eh, sunu mbokk ci yeneen gox yeet ñu jokkoo ba fi mu toll léegi maanaam jokkoo bi gën naa yaatu weer bi ne dem jokkoo ba daayira bi gën a gën a siiw daal ñu ñaan yàlla yàlla dolli ñu sutura ba mu gën a siiw a siiw ba ñëpp xacc waa di sant nag uh, waa dëkk bi yëpp ak yeneen dëkk yi ñu wër muy daa bàyyi xam mbala njëy paaleen jëleru maanaam dëkk yi bokku ci kuréel bu Guyaar Sarr ñëpp ñi nga ñoo ko bokku rek ndaxte lu xew rek dañuy dem ñoom lu xew dañuy ñëw ñu ñaanal ñëpp yàlla yokk seen i fan guddal seeni i yàlla guddal seen i fan yokk seen i wér ba fu ñu bëgg a àgg ñu àgg fa ci daayira bi fi ñu ci bëgg a daal yàlla nañu fi yàlla ak sëñ Mamour jàppale ba ñu àgg fi ci baatu laa ilaaha illallah di sant ñëpp nag sant waa dëkk bi gone ba ci mag kilifa yi góor jigéen mag ak ndaw imaam yi borom dëkk bi ñëpp laa ñu ngi leen sant moom. di ko rafetlu bu baax a baax yéen itam di leen sant yi ñuy ŋàbb seen télé bi ñëw ba fii di sàkku lu ngeen yóbbu na nañu yàlla yombalal li ngeen bëgg ngeen am ko ci waaw ci baatu laay la